الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي تلسبكتاتر LCS لا شن سنغاليز دير سواتنا أكيان تسن أميشان بمكبي دياتي تبارك الله نيو لين ير نيب زيار لين ñaan suñu borom yalna yalla gëreum liñuy def yépp Mm, bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nangul ñu ko su ko defee rek euh, pour gagner temps tey dañu war a jàng liqaam liqaam moom itamit muy al iqaamatu al iqaamatu moom mooy taxawal dégg nga taxawal julli loolu euh, ñu bëri wax dëgg yàlla mënuñu ko euh, léeg-léeg sax ngay àndandoo ak nit di julli jiite ko sant ko pour mu liqaam ngay jégg muy liqaam rek di def ay faute yu garaaw su ko defee ñu jàng ko en même temps itam ni leen ko waxee woon rek dinañ indi quelques lettres moo xam euh, cinq lettres la wala quatre ci alphabet wu euh, arab bi pour itam ñu bàyyi waale ko xel di ci àndaale ak yéen pour ñi nga xamante ne nii pour ñu mën a xàmmee lettres yi mën a liir intéressé na leen ñu booleel leen ko ci moo tax ñu bàyyi partie bi tuuti nii su ko defee rek liqaam euh, mooy allahu akbaru dégg nga allahu akbaru allahu akbaru ñaari yoon dégg nga par exemple tey bu fekkonte noon tey man dafa am euh, ku ñëw war a jullee ndoog man moo xam muy Amadou Kebe wala muy Pape ñëw tey ma war koo jiite su ma ko nee li xaamal moom lii la war a jàng waaw nii la ko war a jàngee nag mu set wecc su ko defee man ma soog a kabar jiite ko allahu akbaru allahu akbaru waaw dañuy wax ne bu dee noddu allahu akbar allahu akbar noddu da ngay jazmu euh, euh, lettre ra bi koy ma sukkoon ron muy allahu akbar mais liqaam allahu akbaru ñaari yoon ashhadu an laa ilaha illa allah dégg nga ashhadu an muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah xayya ala salaati dégg nga loolu la ñuy wax kenn wax xayaa ayaala salaat ayaala salaat moom euh, yéeme na lool mais xayya xayya ala salaat la ñuy wax xaa ayya xayya ala salaati dégg nga xayya ala alfalaaxi xayya ala salaati حي على الفلاح لول لا نيو واخ واه واي امدو كو بنان ايا لا صلاه ايا لا صلاه ديدت با ايا لا حي على الصلاه حي على الفلاح لول غاي واخ قد قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نون لا نيو لقامي الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 waaw jigéen itam buy julli moom kot mën na ko def bu ko deful itam wàññiwul dara ci julleem waaw loolu la fuqaha yi wax bu ko deful bu ko jàngul wàññiwul dara ci julleem kon nag tey par exemple tey Amadou Kébé tey mii euh, euh, monsieur Fall war a jiite bu ko nee liqaamal Amadou lii la lii la war a wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah waaw pa asadu wax naa leen asadu gaynde lay firi moo tax saay woo yàqee rek mu def nga musiba parce que signification bi nga yàq ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah moom benn yoon la léegi nag boo gisee ma indi deux fois bi mooy bu doon noddu tey lii ñaari yoon nga koy wax bu doon bu doon noddu kat day wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati xayya ala salaati xayya ala falaax xayya ala alfalaax xadd qaamati salaatu bi du ñëw bokku ci bu dee nodd waaw bu dee nodd bi xadd qaamati salaatu bi du ci bokk parce que qaamati salaati mooy eh, julli gi taxaw na loolu liqaam lañ koy def pour ñu war a julli léegi kon day tëb xadd qaamati salaatu bi bu dee ci nodd ba pare yii benn bu ci nekk ay ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ji bu ci nekk deux fois la koy wax bu doon nodd allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah encore itam doone allahu akbaru ci noddu allahu akbar ngay wax allahu akbar la ilaha illallah dégg nga kon loolu mooy li ci aju kon su ko defee lettre bi kii mooy alif loolu ñu bàyyi ci xel pour ñu jàng alphabet bi boole ko ci dina am solo lettre bi mooy lettre alif am na ñu koy jànge alifun alifun mais gudd na dafa sonnal booy demee ba ci biir pour waxe leen yeneen lettre alifun ba un ta un tha un jimun ha un mais ñu daggal la ko pour mu yomb moo tax ñu ne la alif simple alif nga xam ne léegi lettre bi alif la dégg nga léegi bu ñu la bindalee lettre bi maanaam euh, def euh, euh, nii def benn tomb ci suuf kii mooy lettre ba lettre ba waaw kii mooy lettre ba kii mooy alif kii mooy ba par exemple lettre b buñ ko defee nii indiwaat nii mu am ñaari tomb ci kaw su boobaa mooy lettre ta loolu yëkka nga ni alifun ba un ta un daa daa diis neel alif ba ta danga koy xëcc baa taa parce que baa un nga waroon wax kon bu ñu xasafee un ji dindi ko baa moo fay des nga ni alif baa taa dégg nga alif baa taa nga gis ne baa taa ñoo niroo euh, këlli bi leen bi leen bi ñu yore baa benn tomb la am ci suuf benn tomb taamoo am ñaari tomb ci kaw ba ba àddunay tukki nag monsieur Fall foo gisee benn tomb ci suuf xamal ne kii lettre ba ba ba àddunay tukki du changé lettre ba la boo gisee mu am ñaari tomb ci kaw lettre taa la ba yow mal xiyaam taa doon gis nga lonk bii mu lonk nii sax amu ci solo même bu fekkoon da nga def nii rek train nii rek def benn tomb ci suuf rek lettre ba la parce que bu fekkee dafa nekk ci biir moo bi su boobaa euh, lonk-lonk lii mën na cee bañ a ñëw amu ci solo li la war a intéressé yow téléspectateur bi seetaan mooy jàppal ni lettre ba benn tomb lay am te tomb bi ci suuf lay nekk lettre ta am ñaari tomb ñaari tomb yi ci kaw lay nekk lii nag du changé mukk comme ni nga xamante ne nii tey mënoo fexe woon tey ba lii du nekk bee kii moom ba ba àdduna àddunay tukki ci lettre francais yi bee rek la mën a nekk waaw boo waree créer mu nag yaay am yi ngi ciy boole yaa xam ne dangay bind baaba indi a indi waat b indi a ok muy baaba waaye daal lettre bi d'abord nga xam ne moom bee la waaw su ko defee nag kii baa baa taa dégg nga de waaw kii moom bokku ci baaba jooju moom bokku ci dama ko cee doon jàmbaas noonu su ko defee alif ba ta léegi boo ñëwaatee nii boo ñëwaatee nii def ñetti tomb nag léegi ñetti tomb mu nekk saa saa noonu lañ koy prononcé da ngay mel da ngay jël sa bëñ da ngay jël sa bëñ ji teg ci sa kaw làmmiñ hmm. doog koo wax saa noonu lañ koy prononcé parce que dafay niroog saa wala mu niroog sha dégg nga parce que kii euh, kii siin la kooku dinañ ci ñëw kii siin la dégg nga boo defee nii mu am ñett tomb chine la kon lii bu ñëwee moom tamit war na am nuñ ko prononcé ba nga xam ne du niroog yii kon bii boo koy wax saa ngay wax bàyyi leen xel li ma waxoon da yaa ngi waroon wax al baa un taa un saa un ñu dindi un ji pour mu bañ diis kon léegi alif moo fi des baa taa saa saa dégg nga alif baa benn tomb ci suuf jàppal taa ñaari tomb ci kaw saa ñetti tomb ci kaw dégg nga kii boo defee nii mooy jiim kii mooy lettre jiim waaw yaa ngi wax jiimun day diis ñu dagg euh, yaa ji ko ak miim bi mu des jiim waaw lonk bi itam dañ ko jàng ci kanam lonk bi mu lonk nii itam amu ci solo parce que bu fekkee bu fekkoon ne daa war a taqaloo ak beneen lettre ci kanamam kii bu ñëwee day continuer day direct parce que am na beneen lettre bu mu war a taqalool mais bu fekkente ne nag léegi moom individuel la moo tax mu def nii mais bu jàpp ne lii am na ci njëriñ tey bu ñu dindi woon lii effacé ko ba mu set wecc tey nii mu des lii rek mu des lii rek ñu def tomb bi jiim la. kon su ko defee tabaarakallaahu mën nañ ko euh, gàttal foofu rek bañ mu bari mi seetaan incha allah commencé nañu ak yow pour jàngal la sa lettre yi nga mën a mën a liire mais lii nag mënugoo koo liir da ngay xam rek d'abord ne lettre bi lii vingt 28 la nag 28 la yi ñuy bind yépp 28 yooyu moo ko composé dinañ koy maas nag maas ci kaw maas ci suuf maas ka lonk maas maas ñaari maas ci kaw ñaari maas ci suuf yooyu yépp mooy tax nga mën koo Euh, nag di ko tudd di ko prononcé mais pour nga xam lettre bi d'abord comme ni nga xamee A B C D E F G léegi jàppal ba ta sa jiim fa tabaarakallaahu signalé nañ ñu ne li ñu tëroon ci waxtu bi jeex na ñu sant suñu camaro man Mariama Si Amadou Kébé professeur Fall tabaarakallaahu madame Fall suñu monteuse kon dig daje incha allah suba ak jàmm ci waxtu wi ki nekkoon ci waxtaan moo seen mbokk daara oustaz Mor Diouf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى